lii ku ko gis xam ne doomu Kaolack yi dañu war a amaat sensibilisation damay wax ne nag dëkk bu ñu buggee mu set du dëkk bi mooy setal boppam mais population bi ñoo war a jóg pour mu set tey Kaolack bu ngeen fàttalikoo bi ñu gën a nekk ndaw marché Kaolack tolloon na foo xam ne doo gis bës wala dimanche bu ñu taxaw ne tey dañuy nettoyer marché bi loolu amatul da ngay xool ne tey service di tous les le ends da jóg pour poudre dëkk bi pour que yooyu wàññeeku loolu amatul damay jàpp ne nag loolu population bi la neex parce que bu ngeen toogee nekk bir Kaolack Kaolack nekk région bo xamné région bu noble la kep ko gis day wax bañ ko Macky Sall jël ben avion tuddee ko Sine Saloum yaakaar naa tey doomu Kaolack dañu wara a delloosiwaat xel xamné c'est pas de la politique politicienne tay ñun li ñor moy que Kaolack développé lu ñu ñëw moy que Kaolack ñu assainir ko lu ñu ñor moy que route yi nga xamné baxul ñu taxaw ñu défar ko j'appelle nak toutes les autorités locales yi nga xamné tay ñoo nekk bir Kaolack parce que ñom aussi li leen war mooy topp ci ginnaaw population bi bu population war a def dara ça c'est important donc di wax ne aussi tey damay wax ne doomu Kaolack gi dama leen di woowaat ñëpp ñu delsi di wax ne tey Sénégal ñaar rek moo fi am bu ma président Macky Sall wootee clean day clean day boobu Kaolack lañ ko doon def parce que tey foo tollu Sénégal dañ naan Kaolack moo gën a salté donc clean day boobu man j'appelle le président Macky Sall di ko wax ne nañ dajaloo waat la population Sine Saloum parce que Saloum du Kaolack rek mhm. nañ dajalo sin Saloum ñu xamné tay li moy euh, fierté Sénégal mhm. parce que Kaolack moy zone centre mhm. zone centre dafa am solo ci deuk Kaolack dafa am quatre entrées té mom rek moko am Sénégal Kaolack nit ñi dañ wara délo ci wat seen xel xamné tant que wuñ bàyyi nit ñi diviser duñu ñu dem té ce que j'ai remarqué à Kaolack ah. moy tay da ngay xol ne politiciens yi fi nek dañoo diviser nit ñi Kaolack nak benn bop la hmm. kenn mënu ko xar ñaar man tay limay def ni hmm. dama jël samay propre moyen parce que fii laa jëddoo fii te fii laa lima soxla moy des bonnes volontés comme man def mako pour mon intérêt personnel hmm. suma ma def dama ko suma buntu kër donc dañuy xol fi nga xamné mo gëna trim tay ci tey Kaolack ñu ñëw pour ñu nettoyer ko donc vraiment damay japp né tay képp kuy doomu Kaolack képp kuy autorité aussi sa ñëw fi jaadu won na tay pour nga xamné ay fils digne de terroir ñoo taxaw vraiment pour mëna défar defar Kaolack dafa femme ñoo wax dëgg yalla tay ku madame la présidente Aminata Touré wax la yéene bi mu parce que nous nañ té vraiment jël na ay moyens aussi jël ay nitam nous engagé wu pour nous pour xool naka pour nous, pour Kaolack pour ko té nous, pour lu ñor la di wax aussi tay Cheikh Diouf mi nga mu doomu doomu nek ko xamne dafa engager trop parce que dafa gis attaque mu ne waa mais attaque bi lan moy sen liguey mais bimu dugg see ci bir xam na ne ñun on fait pas de la politique politicienne dañ fi nek pour développer notre localité dañ fi nek pour assainir suñu dëkk donc vraiment mu andi ay matuwaayam jënd ay matériel ci alalam ñew joxé ko kon koku ko engager la donc di wax ne tay magi ngi aussi Serigne Boub

bi nga xam ne nii tey moo wax clean day boobu ñun da luñ koy woo waa Kaolack du dara budul Kaolack dafa laaj defar Kaolack dañuy am problème donc problème yooyu yaakaar naa ne tey président Macky Sall rek moo ci mën a jàppale te yaakaar naa mu ngi ñu dégg mouvement attaque bi dara ñor ko mënul la développement de notre localité je vous remercie